li ñu gën a nemmeeku ci xibaar yi nga xamante ne mooy circuler ci internet bi mooy Viviane bi nga xamante ne dafa sol benn robe boo xamante ne dafa déborder robe bi waroo ko sol ak soutien waaye bi mu yéegee ci kaw di defaraat micro bi nga xamante ne moom la doon kii ci la robe bi déborder weenam daal di génn waaye Sénégal xam nga góor ñi dañoo pervers bëgg jigéen am problème mu ween ak taat ba robb ba débordé ku ci nekk nag di indi sa version di wax xam nga ñuy wax ñëpp seen jabar yi dañoo nàmp seen ween yi ba mu mel ni ba batañse bu ñu dugal ci cin ba mu génn wàcc daanu yaa ngi dégg seen ñu am problème mu jabar ju am style jabar ju rafet macha allah ju set ndax seen jabar yi dañoo xasaw tilim forox seen yaram yi da dafi tërgën ndax dañoo xeesal ba seen yaram yi dafi tërgën bu ñu jugee sol ay mbaqa piip ay njiit laa yu forox xam nga góor gu mel noonu bu gisee ci suweenu Viviane day jafuur ñu def affaire bi kaa ku nekk di polémique di wax yow yaa xayti mulaanaa soirée yeeg euh, beach sur plage yi Viviane di def nga xam ne dafa neex bay bëgg a dee bouger ketchup fecce fa fecce yu neex ba daaneel waxu leen ci loolu ngeen naan ay bakka buuje sinape ween ya di génn ñeme ngeen polémique journaliste yi mun ngeen a duul fimiste saytaane rambaaj mën a fen te du ngeen wax lu ngeen war a wax wax leen ci Viviane soirée yu neex yi muy def Viviane nee naa la ba mu commencé liggéey ba tey kenn musu koo dégg ci ay no change wala mu def lu ñaaw ànd naag Youssou Ndour ba ànd ba jeex vidéo wala xoola audio masta fiite bi Massa Issa Dieye Fatim Penda ak Maña nee naa la kooku garmi la te yàq ko ñun du tee ñu bëgg ko bëgg nañ ko ba pare te dara du tee ñu bañ ko nag ay waay bàyyi leen jàmbur bi nag ku nekk génn di polémique Boucher Ketchup bul génn xoola di démentir leen bàyyi sénégalais yi ñuy wax wax ju ñaaw comme ñoom dañoo soxor iñaan iñañati bugguñu kuy dem liggéey bu baax bii muy def te rafet ngeen war kaa wax waxu leen ko wax leen ci loolu nga xam ne doomu demba bi doomu demba boobu nga xam ne génn na àddina doomam boobu di fecc suus suus taj suus taj Viviane daal di koy yëkkati ba ca kaw teg ko ci moom xam nga Viviane dafa bëgg xale ndax nee naa la ba sëy jotee dafa sëy waaye ba jox éducation de base jote da ko jox ay doomam ba mu mat sëkk ngeen war a wax ci xeetu baax baaxam yi muy def waxu leen ko benn ci suween bu génn ku ne génn di polémique di wax saala kama saala naaxira atoy sa sabali bref Viviane yaa tey réew mi mosoo fee def lu ñaaw te mosoo ko fee wax lu baax rek ngay def di ko wax gis nga ku la mënta waxal say xeetu baax baax e na la bàyyi nga liggéey sa liggéeya ah réew mi gis nga réew mi ñu nekk nii du ñu gis say xeetu baax dangay isa fika nga salu ci benn affaire rek ñu jël ko def ko polémique ku ci nekk di wax yow yàqeeti mu laa naa ku weenu Viviane yee jaaxal boo ko xoolee ci sa jabar kay bu fekkee moom ween ya daanuwul te rafet na rek di nga ko gis ci moom waaye comme yéen góor ñi dangeen ngeen a pervers bëgg a jigéen te seen jabar yi da ngeen a nàmp seen ween yi ba ñu daanu mel ni ba batañ se bu ñu togg ba mu ba mu wàcc ah seen jabar yi amatuñu eh, kii jot bu ñu defaree seen bopp ndax ñu nga cay marché ya ñee nekk ca fale di dung dungee dukkee duk duki lu ñu jox seen njaboot gi ñu lekk ndax góor ñi amalatuñu jigéen benn njëriñ nag dégg nga moo tax bu ngeen gisee weenu Viviane yi nu mu feree nii daf leen di jaaxal may leen nit ñi jàmm toppatoo leen seen jabar yi moo gën seen yi ngeen di wax te nag kaa li ngeen war a kaa xam nga mooy lan tali yu bon yi ngeen war a kaa tali yi baaxul dafi kàmb booy dawal da ngay dévier wax leen ci loolu eh taw bii nit mu am ñu mu nangu seeni kër wax ci loolu ngeen dimbali ñu may leen ñu jàmm li euh, Viviane ba mu dalee liggéey ba tey mësta def foopa baax na am na personnalité am dignité yar na ay doomam fa mu leen war a yare gis nga nag njuumte kuy liggéey yaay juum te Viviane star la star bàyyi leen di ay mère de famille laak bu ko doomam yi gisee doomam yi buñ ko gisee dañuy xam ne star la bu génnul woon ci télé bi di woy mën naa dund ba dee du ngeen gis ay cëram bàyyi leen wax du ñaaw ak polémique dee leen wax Sénégal dee leen wax li jara wax ñaaw ngeen làmmeñ bëgg polémique saytaane ngeen fi mister seen jikko ñaaw te bon gis nga sama vidéo bere fag yaa xayti mulaanaa ko am ah doy na waar